gaawleen leen ngeen abonné ci seen seen YouTube bi di tvkbn ñu tuddee ko TV Khalifa Bassir Ndaw ngir ngeen mën di jot mboolem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Hadji Omar Ndaw ak yi xew ci biir réew mi ak ci bitim réew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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جنبا ألو كربابو kër jàm bu xeebu lool ñàkk solo lool moo leen di jotal ak nuyoo bu jigee ci xalifa Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg lool te xam nag jàmm yéen ñëpp wax leen ko seen làmm su ko defee yéen mbokk taalibe yi lay waxat taalibe yaakaar naa war na mën a wax ak mbokku taalibeem man seen mbokku taalibe la kilifa gaa ngi nii toog man képp ku sa ñomoon ndaw meññi man sa taalibe lay nekk mënu sa fa ndaw ndigal lépp lay wóyee nga ah, xam nga ne kilifa gi warul wax ba pare ma si teg kàddu alquran def na yaa ayyuha alladina la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi waxut bu leen wax de alquran waxut bu leen wax de la tarfau aswatakum kii nabiyu la ndax darajee nabiyu la toogee fal ulamaa warasatul sa maam daf ci am lu ci teg nag bi sharti xasiyatin bi la iskal loolu ci nga bokk yow sa maam wax fee ci ah nasihatul ixwaan laa tukthir kalaama fi lxuduri ila bi idnin kaamilin maamuri soo moom daf ne bul bëreel wax waxut bul wax de kon mën naa wax waaye bu mu bëreel wax waxut bul wax de alquran waxut bul wax laa tarfu aswaatukum la wax soo moom nee na laa tukkis lil kalaam ma leen di dénk rek yéen sama mbokk taalibe yi ñu moytu yoonu seytaane seytaane bëri na lool te yàqkan la alquran wax nañu ko yaa ayuha alladina amanu la tattabiu xutuwaati seytaan wa man yattabiu xutuwaati seytaani fa innahu yamuru bilfaxsaai walmunkar kon seytaane baaxul kon nañ leen ko moytu jamono ji seytaane bëri na lool jamono ji nekk nii kenn xamut ban jamono la kilifa amatut mag amatut ndey amatut baay amatut lu am kon ci coono bi ñu nekk yëpp yëpp yëpp ñoo ko teg suñu bopp ndax utuñ kalifa yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu ma as-saadiqin sañoo woon na saadiqi la bokk de wajtabini saadiqan mustakmilan rashada bi wasfi ilmika saadiq xaqan ngeen ànd ak mooy sañoo woon nit gën ko dëggu du ci kaddu du ci jëf feneen mu naan ko xasin maqaali bila kibrin wala kadibin tax ana safia yàlla moo ñu boole kilifa gu mel ni sa ñëwoon ndaw yaakaar naa képp kuy wuyoo taalibeem ku ne di nga mucc seytaane ndax waqil jamaati shaytaanan wa taaqiyatan wal jahla wal xusra loolu ñaanal nañu ko ba pare kon nañ xool ñi ñuy ànd ak ñan lañ réew mi yàqu na ab jarax du dem taxaw fee di woote te xamoo li ngay woote lan la tañ mën ak ñu mën a bëri kon yéen ñi taalibe sëñ Omar Ndaw di wuyoo laa ilaha illa allah maa ngi leen di moytulikundoo saytaane ngeen jàppee ko muy seen noonu ndax yàkkat la inna saytaana lakum aduwun fattaxisuhu aduwa yàlla moo ne saytaane seen noonu la kon jàppee leen ko muy noonu waaye seytaane képp ku ko jàppee muy xarit dina la sànq te bu la sànkee jàmm la yéen ñi wuyoo laa ilaha illa allah maa ngi leen di gundoo seytaane ndax seytaane baaxu da yàq tax na amatuñ bàyyi seytaane tax na amatuñ yaay seytaane tax na amatuñ sëriñ seytaane tax na amatuñ mag seytaane tax na amatuñ rakk loolu yëpp seytaane ko waral ndax dafa am yoon bu ñuy woo ñu nangu koy wuyu kon nañ fexe mooy pexem seytaane yooni seytaane nañ ci yàlla musal ci sëriñ bi ñaanal nañu ko buñ ko farloo di ko fàggoo mu lool nguur gu bi ñuy wax abu lay dafa wax ne ixlam xamal yow mi ma jàkkaarloo ne ana lakka arbaatun min al taxtaaju ila an tujaahida kulla waxidin minhum mu am nga ñett noon noonu ñeenti noonu ñun dina aajoo nga jaay képp kenn ci ñoom ñu ne ko ban ak ban la mu ne bi ci mooy ad adna paaw fala taxuranakum alxayaatu dunia adna day ware bañ nañ ko ba daarul xuróor lañ ko tuddee yéen di salaay salaam dafa toog ci doyu màkk yi ndax yàlla na tawoon na ko léegi-léegi mu toog weer ñaari weer ñetti weer du am lu mu lekk lu dul tàndarma ak ndox jibril fekk ko fa ne suñ borom mu ngi lay nuyu ya rasulallah mu ne ko maa koy fay mu ne ko sa borom nee na bu fekkee soob na la yow yenente bi doji mag yëpp ma def ko wurus ak xaalis nga di ko jëriñoo yenente bi toog ak diir na ko ina dunya daaru man laa daara la wa maalu man laa maala la yajmua man laa aqala la adduna bii kër koomu kër la xalalu koomu xalal la ki ñàkk xel rek moo koy moo koy dajale kon nañ leen mooy ci àdduna ndax daarul xuróor la baaxul ñu ne ko abu lay si ban beneen bi ban la mu ne nafsuka mooy sa bakkan yonent bi salaay salaam na ci hadis ñu jëlee ko ci Abu Abbas yonent bi ne na ahda ahduwika nafsuka allati bayna janbayka noon bi gën ci sa noon yi mooy sa bakkan bi wa ma nafsi إن النفس لأمارة بالسوء كن نيكم إيش باو عز للنفس والجن والطاقية والموسيات سنسر نيان نيو يال نيو يوم نيوكو نيتن ببان لا من الشيطان الجن الشيطان أمن الجن أمن نيو boobu moom dee ku muslu heure boo xëyee rek del muslu ci seytaane jinne ndax xam nga li lay gis te yow mënoo koy gis te mu ngi lay pexeel jamono ju nekk loolu mën nay muslu ñu ne ko ñeenteel bi ban la mu ne mooy seytaane nit moo fi bëri nag seytaane nit koo xam ne du dara di boote ak wilaaya ak bëri Sénégal day xam ne ñu ngi naan la alquran nee na istamaa alladina tubiu min alladina tabau wa raw l azab wa taqataat bihim al asbab wa qala alladina tabau law anna lana karatan fa natabara minhum kama tabaru minna kadalika yurihim allahu amalahum asaratin alayhim alquran nee na wa ma hum bi xaarijina min annar nañ xool ñu àndal bis dana ñëw sëriñ bañ toppoon dañ ci taalibe bi ko toppoon ba set be tool bis dana ñëw sëriñ bi dañ ci taalibe da ko toppoon wecci wecci wecci billahi lasi la ilaha illa alxuraan ak wax du day boobaa nag wetti ñëw dellu ginnaaw mënut am ndax àdduna moom bu xasee jàll rek na waaw kon du ki ngeen mun leen ko xool kon jëmm ji ni sa ñëwoon doo ku ko am jàppal xaaral taxut ko jóg de mbooloo taxutoon ko jóg lépp lu xam lépp loo xam ni am na ko ci jotaayam la ko fekk sëñ bi demu fenn mbooloo mi ko yàlla jox mu sell lool mbooloo mi yëpp yëpp yëpp daaru salaam ko fekk du moo woon sàkku ji ko de sëñ Omar Ndao demu fenn kon nañ moytu nañ moytu saytaane nit ñi ak ko fee bëri ñu waaye xam ngeen ko de sëriñ boo xam ne nii mënu la wan biit néegam sax mënu ko wan dara mënu ko wan dara xam na rek la lay wan du la wax yàlla du la wax yonent bi du la teg siraatal mustaqim looy ànd ak moom bu fekkee am naa tax ngay ànd ak moom bis dana ñëw at na jeex bu dee taar moo tax nga am ak moom bis dana ñëw taar ba jeex kon nañ ñuy xool nit ñu baax yi ñu ànd ak moom yàlla moo ne wa kunu ma as-saadiq wax naa leen ni sa ñëwoonoo saadiq kenn gënu koy nekk saadiq kon yéen ñu ko jàpp téye leen gën leen di téye amul jëmm ji ci àdduna ku xëpp sa ñëwoonoo daraja fa yàlla déedéet loolu mu nekk seytaane seytaane bëgg lu baax lu bon rek sama digganteeg man sëñ mu ci bu neexee neex lool seetaane loolu ko gënal mu mën a ñëw jaax sama digganteeg sëñ mu ci wax kon seytaane baaxul yonent yàlla Moussa dafa romb Iblis Iblis yore ci loxo bi lem mu yore ci loxo bi dóom leen di yàlla Moussa ne ko ah sa loxo bii nga yore lem bii lu muy jëriñ mu ne ko lem bii dama koy riib ci gémmiñu jëwkat yi ngir ñu gën a mën a jëw xool ku banko mu ne ko lem dama koy riib ci tuñu jëwkat yi ngir ñu gën a mën a jotal jëw bu qu'est-ce bëgg na lu baax mu ko doom bi nag mu ko doom bi dama koy riñ ci xar-xaramu jiri mi ndax ku leen gis bañ leen <laughs> kii moo bon te jirim képp aas jirim boo koy dóor rek jaay fekkee yàlla yàlla wax ay malaakam ne waaye koo la dóor sama sama sama doomu diw gi nga xam ne maa fàddul bàyyam ci suuf foog tooñ na ma de waay xool ci bis bon gi bon yàlla daf ko yónni ci Seydina Muhammad mu ne ko demal ci yónnente bi lépp loo xam ni laaj na la ko nga tontu moom Iblis Iblis ñëw. yore melo màgget mu ngi yore benn dog bi jaaw lool ba mu ñëwee fekk Seydina Muhammad mu ngi toog nu ko yàlla mu ne ko man maa iblis yonent bi ne ko lu tax nga fi ñëw mu ne ko sa borom moom ma digal ne naa la dikkal nga laaj ma lépp loo ma laaj ma tontu la ah yonent bi ne ko yaa Iblis kam aadaauka min ummati ñaata noon nga am ci sama xeet bi ñaata la mu ne ko fukk ak yow mu ne ko bu njëkk bi mooy ban mu ne ko yow Muhammad <laughs> ah? yow yaay sama noon bu mag bi yow yaay ëwul bi yow la nu ko xa mu ne ko yaay sama noon bu mag bee mag bi wala jëm ji mel Seydina moom nu ko ñaareel bi kan mu ne ko imaamun aadilu imaam bu mandu kooku mooy ñaareelu noon bi na de ñetteel bi mu ne ganiyun mutawaadiun borom xam-xam borom xaalis kon wala borom koom boo xam ne day toroxlu jamono ju nekk ñeenteel bi mu ko taajirum saadiqun commerçant bi xam ne dafa dëgg kooku sama noonu la ne ko juróomeel bi mu ne ko aalimun musallin yataxashaw mooy borom xam-xam biy julli ba pare ànd ak toroxlu kooku sama noonu juróom benn bi mu ni ko moominun naasixun jurit bi laaye biir foog sama noonu juróom ñetteel bi mu ne taayibun thaabitun ala tawbati yi mooy tuubkat bi nga xam ne dafa sax di tuub rek ndax yonent moo ne képp koo xam ne ni taxoon na tuub kooku du am bakkaar mu ne gis sax ci tuub kooku sama noonu juróom-ñeenteel bi mu ne mutawarion anil xaram ki nga xam ne day sàmm lépp loo xam ni dafa xaram noonu ñu ne ko fukkeel bi mu ne mooy jullit bi nga xamante ni dafay saxoo dafay saxoo laab jamono ji nekk day laab kooku sama noonu mu ne ko fukkal benn bi mu ne ko muminun kathiru sadaqa jullit bi nga xam ne day bëri dafa bëri sarax kooku sama noonu la mu ne ko fukkal ñaareel bi kan la mu ne ko muminun xassanul xulux jullit bi nga xam ne jikkoom dafa rek kooku sama noonu la fukkal ñetteel bi mu ne muminun yanfau naas mooy jullit bi nga xam ne ni day jëriñ nit ñi sama noon la fukk ak ñeenteel bi mu ne xaamilul quran yu diimu qiraatahu ki nga xam ne dafa mokkal alquran nekk xaafisul quran taqoo di ko jàng kii sama noonu lu ko fukkale ak juróomeel bi mu ne qaa'imun bi layli wan naa su niyaamun ki nga xam ne ba ñëpp tëddee nelaw dafa jóg di naafila kooku sama noonu mu ko ñii ñooy samay noonu ah yéen tamit nag xanaa ku am noonu ku ne am nga soppe am naa soppe ne ko sa soppi si sama xeet bi ñaata la mu ne juróom-ñeent ñu ne ko ban mooy bu njëkk bi mu ne xaakimun jaayirun attekat bi jëngal foog sama soppe ñu ne ko ñaar bi mu ne xaniyun mutakabbirun borom koom buy rëylu si kaw nit ñi foog sama soppe xanaa bon na de ko bon ñu ne ko ñetteel bi ban la mu ne taajirun xaainun commerçant bi nga xam ne warkat la fenkat la kii sama soppe la yow yonent bi ñu ko ñetteel bi kan la mu ne saaribul xamri naan kati sàngara bi kii sama soppe la juróomeel bi kan la mu ne saahibu riyaax ki nga xam ne day gis leen jamono ji nekk kii sama soppe ñu ne ko juróom benn bi mu ne aklul aklu maalil yatim kii lekk xalali jirim kii sama soppe la yow moom ko juróom ñaareel mu ne al mutahawinu bis salaati ki nga xam ne day doodal julli day doodal julli mooy dalul julli wala du julli ci yow moom ma ñu ne ko juróom-ñetteel bi mu ne maani u zakka ki nga xam ne duy joxe azaka kii Muhammad sama soppi la mu ne ko juróom-ñeenteel bi mu ne mooy ki nga xam ne day guddal mbébét jamono ju nekk rek mu ngi mbébét di mbébét di mbébét rek kii sama soppi la ñii ñooy samay soppi yow Muhammad sallallahu alayhi wa est-ce que dégg ngeen li ñu ngi leen ci bàyyi xel. imam dégg nga yow koom dégg nga yow borom xam-xam bi dégg nga yow jullikat bi ndax dégg nga bàyyi leen xel ci li may wax njëriñ rek laa fiy jóor waxuma ngir dara pour ngeen jëriñu rek ndax jamono ji ñu gàttal fofu rek yéen ñi talibé shaytané ñu non yoonu shaytané ñu ko moytu baax baax baax baax nañ leen fexe tege ci siraatal mustaqim ndax mooy yoonu yàlla gërëm ndax seytaane baaxut day yàq dafa am kenn ci gaay yalla yi ku ñaan suñu borom ne ko dama bëgg nga wan ma place saytane ci xolub doomu waye waaye de bëggu di gis benn jëm bu ngan mu gis saytane mu ngi yore melok mbott saytane moo yore melo mbot nekk fii ci diggante nopp waa ji waajaa ngay gis mu gis seytaane mu ngi nekk ci diggante nopp waa ji ak magam fii la nekk côté càmmoy mbott mi moo yor bakkan bu gudd sew lool mu gis seytaane jël bakkanam bi dugal ko ci biit mbagguwaa ji mu jëm fii xam nga xool fii la nekk bakkan bu guddi bii la jël dugal ko fii dem ba ci xol waa ji bu waa ji tuddee yàlla mu koy jëx-jëxal naan nii seytaane bon daal nañu yàlla musal ci seytaane kon na ngeen gën a góorgóorlu xam ne am ngeen sëriñ bu marsari muy suñu wàllam. nga xam ne rasulullah muy lépp. rasulullah ko xamal lépp lu xam. sëriñ bi rasulullah di jàngal bu ngeen ko bëgg xam muy suñu wàllam. lépp lu mu xam yonent ko xamal. makin daifaka min taalimi safwatina jàpp na la sa aji doy di ji mooy sëñ Awa Ndao yàlla dara màggu min taalimi sahwatina na yonent bi nekk cheikhu taalima di ko jàngal bi xilnika maa ngi la koy ñaan ci sa gi astir fi ba aji sell ya xalimu yàlla kon na ngeen gën gi ñun daf ñu ñor lool ndax ci basang lañ daan njëkkee tey ñu ci baas xajutul ci kër gi loolu sant yàlla la lii leen ci bëggoon mbooloo mi yokku nag te mbooloo mi yokk mbooloo dina la kon sant nañ ci bu baax gërëm ci góor gi ñu ngi koy sant ndax xéwal gi ñëw moo fi indi ñu lay gërëm di la sant bu baax baax baax di la ñaanal yegg dëkk bi ñu ñaan yàlla naatal ko may fi dëppoo. gàmm gu ne na morom am na borom gàmm gi gàmmu yonent bi waaye gàmmu sëñ Omar Ndao la gàmmu sëñ Omar de ay njabootam rek ci nekk kon na ngeen gën a góorgóorlu ngeen xam ne dimbalante dëkk bi yëpp ñu ngi leen di gërëm ndax lii kenn mënu ko gaaw leen ngeen abu abonné ci seen seen YouTube bi di TVKBN ñu tuddee ko TV Khalifa Bassir Ndaw ngir ngeen mën di jot mboolem xew-xew yi nga xam ne day xew fii ci Daaru Salaam El Hadji Omar Ndaw ak yi xew ci biir réew mi ak ci bitim réew